au peuple sénégalais souverain qui va dire ba xam dafay jox ñi mu faloon le 24 mars majorité pour ñu changer réew mi wala daf leen ni joxaat peut-être une majorité ñu ko ne di bloqué c'est un peu ce qu'il dit pourquoi une majorité benno pourquoi mais Moustapha de la nouvelle responsabilité ah mais mais mais mais évidemment bien sûr alors Mame Birame là euh, man euh, peut-être euh, je ba xam boobu yaa ngi fi da nga woon ñëwaat bi Boubacar Camara di wax saal Euh, man bokk na ci li ma doon dégg depuis ay ay ay semaines ngi nii mooy bu ñu tasee assemblée danañ ay ay euh, ci wàllu fu ñuy jëlee budget bu ñu demee élection euh, comment est-ce que le président va gérer le pays une assemblée bu war a voter budget beeg ñu demee noonu mais Boubacar Camara lim ñu wax te te c'est pas n'importe qui quand même travaillé na ci les régies financières pendant des années lim ñu wax mooy un état loolu tëw ko ce problème là l'état est-ce que mën nañ mën nañ ne donc on peut dormir tranquille il y waaw ci côté boobu de ma ne dina am problème puisque ñi nga xamante ne nii ñoo jël décision bi. loolu day bokk ci paramètres yi nga xamante ni dañ koo jël. en compte bu ñu demee booy euh, décider. Euh, te dans tous les cas jàpp naa ne Sénégal élection yi passé bi koy budgétiser je ne crois ne dañ koo yemale woon tout simplement ci premier tour. jàpp naa ne au moins. envisager woon nañu. que premier tour dina am mm-hmm. deuxième tour dina am. te comme deuxième tour amul c'est des moyens yoo xamante ni yu ñu fa waroon a def la te defuñu ko fa. ma fa te au la de sax jàpp naa ne am na ay ajustement yoo xamante nii tey mën na permettre soo déggee le premier ministre dernièrement ba créé na ko fi ay critiques sax. yu ñuy wax rationaliser. Euh, euh comment dire euh, euh, le train de vie de l'État. de l'État maanaam ñu xool yenn dépenses yi nga xamante nii kawe na ñu mën ko rationaliser pour permettre tout simplement ñu fatt yeneen i buntu mais xam nga Moustapha boobu ba léegi. li nga xamante ne ni waxuñu ko également ci euh, dissolution ñaari institution yooyu. Mhm. parce que am na ñu ngi soulever bokku dargument ci am na njëriñ amul njëriñ. Euh, expliquer comme quoi que euh, président mënoon na xaar ba am une majorité daal di koy dissoudre. waaw mais Macky Sall bu muy dindi le Sénat. Sénat mais xanaa déjà sax li ñu war a njëkk a souligner. mooy ñaari institution yi nga xamante ni créé na leen mais c'est des institutions fantoches maanaam euh, pouvoir amuñu ko ñaari institutions yi amuñu aucun pouvoir maanaam boo nee Sénégal am na six institutions jàppal na ñaari institutions yooyu ñoo gën a ñàkk pouvoir ci institutions yi amuñu daanaka dara déjà un benn bi ñu ci bëri président de la république moo leen di fal te en plus de ça ñoom ay avis lañ la mën a jox duñ la jox benn décision doo jógee doo dégg ñu ne la ACCT wala euh, euh, conseil économique social et environnemental waxtaan nañu jàpp nañ ne kat ponk bi baax na ci Sénégal dañ koy appliquer non non non ñoom lu ñu mën a def mooy su su mettre ko comme proposition wala suggestion. tout simplement. président jël def lu ko neex. très bien te bu ñu nee ab institution la. ñu ne day représenter plus ou moins sénégalais yi <laughs> maa ngi dégg daa Dafa sànq muy wax ne bu nekk assemblée nationale ñu ngi fay voté ab loi te jaarul fële xëy na mën na indi coow <laughs> mais loolu xanaa beneen dëkk la bu dul Sénégal gi parce que euh, ñaari institution yooyu ñoo fa nekk daanaka ñi ci gën a bëri. Mhm. Benno Bokk Yaakaar lañ nekk ñenn ñi Macky Sall moo leen nommé directement surtout au HCCT. oui 80 yi ñu ne dañ leen a fal indirectement. à travers élection yoo xamante nii ce sont les élus ko la ñuy fal mais beneen daanaka xaaj bi 70 yi Macky Sall moo jël bigam ne ñii ay conseillers lañu c'est la même chose ak euh, siège fële ñu dugal fa ay acteurs politiques fële ñu dugal fa des membre de la société civile ay Birahim Seck ak ñeneen ñoo bëri nga xam ne da ngay dégg seen yenn des fois seen position yoo dul comprendre. Mhm. mais c' parce que dugal nañ leen assez euh, dugal nañ leen au conseil sup. ACS kii CES conseil économique social et environnemental. Mhm. tout simplement. mais maam Birame c' est du 20 pour. bu nekkee bu nekkee bu nekkee bu nekkee. yow institution boo xamante ni amul pouvoir. maanaam ñoom du ñu daje ba voté dara ba ñu ne lii dañ ciy tënku. kooku disu bu ñu mënee dissoudre Sénat bi nga xamante ni moom da daan voté. ay loi da daan voté parce que loi bi ko dissoudre bi ñu ko njëkkee soumettre Sénat Sénat dafa bañ ne du ko voté. Mhm. donc au moins mun nañoo wax ne institution boobu ña fa nekk am nañu benn pouvoir boo xamante ni mun nañu daje ne dañuy décider. Mhm. mais institution yi amul loolu ba pare xaalis boo xamante ni dañu leen koy jox bu weex tal chaque weer ñu ciy def loo xamante lu leen neex mais donc de ce point de naa ne. bu ñu nee dañ ko fiy dindi. Mhm. pour remplacer même bu ko dee remplacer ak autre chose boo xamante ni moo gën a dëgër je crois que c'est une euh, euh bonne idée. d'accord Abbas Fall j'aimerais bien euh, dégg la tuuti ci nan lañ nar a régler problème mu parrainage par exemple. ñu ngi jëm ci ay élections yoo xam ne euh, apparemment les délais euh, risquent d'être très courts parce que ñu bari dañoo jàpp ne peut-être président dina wax ne en décembre la ñuy dem élection là il dit 17 novembre mm-hmm. euh, euh, Tamba Danfa wax na lu am solo sànq nee na paramètres yi président di am pour mën a apprécier ñun duñ ko am mais on a le droit de lire par rapport à ce que nous nous entendons est-ce que dañuy woota woowaat la classe politique ñu toog waxtaan pour xool comment régler la question du du, du parrainage mm-hmm. ak comment éviter liste yu baree bare yooyu mais également li Pape Moussa wax wax sànq comment faire pour que assemblée nationale am ay députés yoo xam ne je n'ai rien contre seen législature bi génn ah. mais en tout cas des profils yoo xam ne dana indi leneen assemblée lu dul liñ doon vivre ñaari at yi. Mm-hmm. oui pour le dernier point moi je pense ça c'est l'affaire de partis. des partis partis war nañ ci def euh, war nañ ci def effort. Mm-hmm. te boo xoolee ñun li suñuy ministres yi nga xam ne ñoo bokk. je veux dire ñoo bokk coalition. jot a ñëw assemblée nationale. Moustapha jëlal temps rek nga xool intervention député yi. Mhm. jëlal temps nga xool intervention député yi nga xam ne isson sont issus du camp présidentiel nga xool. Mhm. déggoo fa kenn ku fa tagg ku fa tagg. président Bassirou Diomaye fay déggoo fa ku fa tagg. le président le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. préoccupation sénégalais yi. dañ leen di fàttali. d' accord ñun ñun ah, loolu ah, lañ gëm ne moom moo ñu war a yóbbu. Abbas deux ou trois petites minutes. Ah, ma ñëwaat ci yow dama bëgg a déglu euh, rapidement euh, Seydou euh, Gueye ancien ministre porte-parole de l' pour la république Seydou Gueye maa ngi lay nuyu. Moustapha maa ngi lay mhm, jàmm rek nga am. sant yàlla bu wér. alhamdulilah alors euh, dégg nga le président de la république euh, ci booru vingt ak li mu wax ci assemblée nationale bu Sénégal ba nee na dissoudre nañ ko ak euh, ban lecture ngay def ci argument yi nga xam ne moom la président avancé justement pour justifier dissolution boobu la. jërëjëf Moustapha maa ngi maa ngi nuyu sa gan yi. jërëjëf ñu lay yàbbi ci waxtaan mi ci liggéey bi la bokk te li moo war am. Mhm. alors euh, amul euh, justification parce que ay prérogatives constitutionnelles u président de la république la bu assemblée nationale weesoo ñaari at ñu may ko sañ-sañ mu tas kuréel gi delloo kàddu gi askan bi parce que dafa am président de loo xam ne moo ko war a jig hmm. ku nekk soxla nga assemblée nationale bu lay jàppale ci politique bi ngay jox développé. d'accord loolu kenn